ah ñoo soutenir suñu président Ousmane Sonko rek waaw ah. ah pour luñ ko bëgg a fexeel te du jàll. luñ ko bëgg a te du jàll. waaw loolu moo tax ñu ñëw soutenir ko waaw. nga leen fas yéene lu ñu fas yéene def ba ñun taxawee taxaw rek taxaw rek def face ak makisal Sall won ko fii muus du fi naanee ñeex ñun président Sonko ñun ñoo ko bëggal suñu bopp ñoo ko tànnal suñu bopp fii kenn ñu ñoo ñëwal suñu bopp. dañu dégg dafay de presse kii conférence de presse yëpp ñun yëpp ñu ñëw ñu ne dañuy assister waaw pour teew kenn joxuñu dara ñoo ñëwal suñu bopp parce suñu bopp taxi ñoo ñeneen ñëw ak seen car pour assister jàppale ko rek waaw. mooy procès bi suba boo xamante ne député yi nar nañ ko def assemblée euh, nationale donc ñun lu ñu woote mooy lépp lu ñuy def nañ ko def si yoon bu ñu xool ni kii neexuma rek jéem ko écarter si dans dans le cercle politique loolu noonu réewam du doxee noonu. donc Ousmane Sonko c'est un candidat potentiel donc bu ñu toog fii di ay fabriquer loi yoo xamante ne loi amul fen loo xamante ne ñoom bu ñu nekkoon dans l'opposition kenn deful leen loolu noonu donc Ousmane Sonko bu mu ñëwee avec euh, l'essor qu'il est en train de prendre l'ampleur donc c'est pas c'est pas c'est pas ñu ñu nar ko ñu nar ko faagaagal wala util ko pexe loo xamante ne suba du bokk élection wala dañ ko yóbbu kaso donc ñu loolu lañ ñëw euh, suñu teewaay loolu la loolu lañ ñëwoon fii pour jéem ko naaxarul pour sénégalais yëpp xam ni Macky Sall lu mu nekk def nii lu dictature lu mu nekk def nii démocratie doxewul noonu donc euh, en guise de kii loolu laa mun a am ko yëkkati quoi merci. xanaa taxawul sunu leader Ousmane Sonko wan leen ne rek ci lu mu nekk lu ne ñu nekk ci te duñ ko weetal benn yoon. lu mu nekk lu ne ñu nekk ca te duñ ko daw benn yoon ndax ñun ñooy ñooy panteeram bu ngeen déggee les panthères de Ousmane Sonko ce sont les femmes de di du parti ñun ñoo koy accompagner fu mu taxaw ñu taxaw foofu mu nekk ñu nekk ci kanam incha allah. waaw xam nga li li ci suba eggagun ca. waaye toujours dans toute day am un mot d'ordre on attend ñun ci ndigal ndax parti bi dañ ko structuré donc ñu ngi ñu ngi koy xaar incha allah fu mu ne nu foofu rek ñu fekk. waaw lu war a tee teewaay bi mooy ñëw jàppale ji sunu leader bii ñu bëgg a faagaagal te loolu panteeri jigéen ñi duñ ko seetaan loolu moom il n'est pas question loolu moom sëñ bi ça passe pas loolu moom du am duñ ko seetaan loolu moo tax ñu def sunu conférence de presse bi jàppale Ousmane ko wax Sénégal lu ñu bëgg a def ko Sonko nuñ ko bëgg a faagaagal dañoo bëgg réew mi yëpp xam. nguur gi fu mu bëgg a jëm ak Ousmane te loolu moom sëñ bi ça passe pas loolu moom duñ ko nangu waaw suba moom comme nu ko ndaag waxee suba suba yàlla la ñun ñoo ngi déglu ñoo ngi déglu waa sunu sunu waa copil bi Pastef ñu ngi déglu waa copil Pastef lu ngi décidé lépp lu waa copil décidé ñun ñun ñoo ngi si ginnaaw waaw parce que ñun tamit dañuy déglu rek waaw man moom man maay présidente des femmes de Grand Dakar nekk présidente commission département Dakar mais dañuy déglu copil copine lu mu ñu wax rek ñun dinañ ko def incha allah waaw merci. en parlant de sax demain assemblée bi dafa am lu ko jiitu parce que euh, Sonko normalement ku ko soxla tribunal nga koy convoqué ndax ba muy ba muy déposé plainte du tey te kon ku am fooy plaider ko looy wax du doon assemblée ñu ngi koy xaar tribunal kon nag lii lii dëgg tey yoon rek mooy mooy mooy au tribunal kon nag foofu mooy dëgg. kon lanu nar assemblée ñoom ñoo ko xam waaye liy dëgg ma nga tribunal incha allah jërëjëf. waaw dañ ñëw juste pour soutenir suñu leader euh, xeex li nga xamante ne moom la Macky la bëgg a def si dëkk bi mooy li nga mooy injustice loolu moo ñu fi tax a ñëw tey. waaw message bi leer na mooy Macky Sall li nga def na ko mu jàll à chaque fois bi yoon ça ne passera pas parce que ñun nous sommes des jeunes engagés nous sommes des patriotes. parce que dafa am loo xamante ne Sonko dafa am loo xamante ne daf ko def si ba tax na dafa yee li nga xamante ne moom patriotisme si loolu moo tax tey ñu taxaw fii waaw lu mu laaj nag jaral nañu ko